mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey ay fukk ak juróom ci suratu nisa wallaati ya'tiina alfahishata min nisaikum ñu ngi sant suñu boroom jalla wa ala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind ci téeram bu tedd bi suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bégal ñu ca ay bégal yu màgg bokk na ca loole ña nga xam ne ñoo koy def suñu borom dana wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi mboolem ña koy nar a déglu it fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ngi ñaan suñu borom yàlla boole ñu ak ñoom ca it fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom ci groupe jàkka jeeg su xam sa diine yeeg xam islam point com rawatina suñu télévision bi di Islam TV la nga xamee ni nii ña ngi koy taxawee ci jottali kaddu borom bi ak mboolem koo xam ne da leen cay jàppale ñi ngi ñaan yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ñun ñëpp nangul kon tey jii mooy juróom-ñeenteelu fan te la nga xamee ni nii moom la ñuy tuddee weeru Shaaban sunu maam yi daañ ko tuddee li nga xamee ni nii moom mooy baraxlu muy tombeek li nga xamee ne nii kon mooy premier mars ci deux mille vingt trois bi waaw kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jël la ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه بينهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما بارك الله فيكم سنة بروم جل وعلا مني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الف... واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ñanga xam ne day ñooy indi aw ñawtiif ca buñ ko boyle rek day nekk ak njaalo min nisaikum ca seen soxna ya fastashhidu alayhinna arba'atan minkum na ngeen seedeloo ca seen kaw ñeenti góor te ñi te yéen fa in shahidu su dee seede nañ njaaloo googe fa amsikuhunna fil buyut téye leen soxna yooyee ci seen kër ya xatta yatawaffahunna al mawt bu ñu fa génneti mukk xanaa lu dul dañoo faatu ci ak dee aw yaj'al allahu lahunna sabila wala boog yàlla def ñel leen ginnuwaay wala zaani ya'tiyaaniha minkum ña nga xam ne it ñooy indi ñawteef boobu ci yéen ñaar ña koy indi ca góor ña fa aazuhuma ngallawaay na ngeen leen lor fa in taaba wa aslaha su dee tuub nañu ñu yéwénal fa aaridu anhuma na ngeen dummu yi ci ñoom bàyyi leen inna allaha kaana tawaaban rahima sa borom yàlla day du deñ di nangu tuubub jaamam mooy it kay yëram ay jaamam innama tawbatu ala allah la nga xam ne nag mooy tuub gay war ci yàlla mu koy jéggale lillazina yaamaluuna suua bi jahaala mooy ña nga xam ne dañuy def jëf ju bon ja ca la nga xamee ni nii mooy ak réer ay asafaha summa yatuubuuna min qarib gannaaw ba it ñu daal di tuub ci lu jege fa ulaika yatuubu allahu alayhim ñu mel nii day yàlla dana nangu seenug tuub wa kaana allahu aliman xakima yàlla nag mooy aji ki xam lépp ki xereñe ki mi ngi noonu bokk julit xam nañ ne suñu diine ji mooy diine boo xam ne daa ñëw ngir laabal julit ñi àdduna ak alaxira laabalit la nga xam ne mooy seen société rawatina ci musiba boo xam ne société bu mu dugg yàq ko indi fa la nga xam ne mooy yàq ci wàllu alal génne fa kersa indi fa noonoo indi fa reyante loolu mooy lan mooy njaaloo googu nga xam ne suñu borom nee na yoon bu ñaaw la njaaloo it xam nañ ba àdduna sosoo ba tey ña nga xam ne ñoo tey woote moom muy jigéen jigéen ñoo gën a bari di woote ci njaaloo looloo tax boo demee suratu nuur bi suñu borom di indi atte yam mujj indi yi folli atte yi daf ne azaniyatu wazani jaalookat bu jigéen ba doog wax bu góor ba loolee kon mi ngi noonu léegi nag jigéen ñoo xam ne dañ leen a jàpp ñuy njaaloo ba lislaam di doog a indi seeni atte daf ne nañ leen seedaloo ñeenti ci ñoom te it mbokk julit atem njaaloo la tax ñu koy teg nit ñetti mbir yi rek lay doon mooy benn moom ci boppam moo ñëw ne man kat dama doon njaaloo loole jamono yonente bi alei salatu wasalaam daloon na ka nga xam ne mooy Malik ak ka nga xam ne mooy alxamidie kii góor la ko jigéen la ñaareelu mbir bi moom mooy soxna si kat ëmb na te amul benn preuve bu mu wone ne dañ koo mas a violé dañ koo mas a jalgati siif ko su boobaa itamit dañu naan ci njaaloolu dañuy teg ci moom loi ñetteel bi mooy ñeenti góor ñëw seede ne gis nañu leen ñuy njaaloo doonte ne loolu ku mel ni ibnu taymiya rahimahullah jamono ba muy dund daana wax ne jamono yonent bi alayhi salaam ba suñ jamonoy tey xamuñu ci histoire koo xam ne mas nañ koo rey ci njaaloo ci ñeenti nit ñu ko séede ndax mbokk séede ba mooy lan dañ leen gis ñu dugg ci néeg la wallah dañ leen gis ña nga ca kaw lal ba def ñoom ñaar ñëpp yaramu neen la wallah mooy ku nekk day séede ne la yàlla jox góor ci ngóora maa ko gis ci biiru la nga xam ne moom la soxna sa yor ku nekk ñoom séede loolu loolu nag mbokk la nekk lu jafe loolu tax ba jamonoy Omar am na ñett ñu ko mës a seede amuñ ñu leen ñeenteel Omar daf leen a dóor almuhim lii lépp bokk na suñu borom yàlla li mu bëgg mooy sutural jaam yi sàmm it bakkan yi bañ bañ leen a rey waaye bu dee am na mooy seede nañu ko njëlbeenu lislaam lan la suñu borom waxoon soxna sii ñu seede ne njaalookat la day bis ne ki tey tànkam bu mu tegee te buntu këram nañ ko sàmm ba mu dee ca kër ga ba mu génneti loolu mu nekk loo xam ne dana ko delloo gannaaw ba ba yàlla di indi ci ñoom la nga xam ne beneen yoon bu mu leen génne yoon boobu yàlla subhanahu wa taala génne moo góor ñi ñoo ca bokk yam te mooy la yàlla wàcc ci suratu nuuru mooy njaalookat di bi nañ ko dóor téeméeri yar nañ ko dóor téeméeri yar loolu la yàlla wàcc ci alquran mu wàcc ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu dee mas naa sëy moom nañ ko nañ ko dóor xeer ba mu dee nañ ko dóor xeer ba mu dee omar ibnul xataab taxaw na ci min bëri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nga lawaay bu yàlla yàggal jamono ba nit taxaw ne ey ku njaaloo dóor lañ gis yàlla wax ko ci alquran nañ ko dóor téeméeri yar mu ne day yonent bi alayhi salaam day moo ñu jàngal ne loolu ma nga aju ca ña musta sëy te góor ak jigéen ñoo xam ne musuñoo sëy ay musuñoo sëyit lañ ca jublu musuñoo ànd ci lal te mooy jigéen buñ ko mayoon jëkkërit mu ànd ak moom dix ans te musuñu ànd ci lal góor bu takkoon soxna ànd ak moom dix ans te musuñu ànd ci lal teewul bu njaaloo lañ koy duma amma guddi gën jëkk a fanaan ci lal ñoom ñaar xamante ku ci njaaloo te dañ la war a dóor xeer ba nga dee mu ne nag yonent bi day raj mu na rey na ay nit wax naa la ne ko sànq ki nga xam ne mooy malik ibnu maïs comme ñooy ci yonent bi alayhi salaam da ko ay li yéwén man damaa njaaloo yonent bi dummoy ko ay yoon mu ne ko yow mi yàlla yoon damaa njaaloo nañ ma laabal mi ngi noonu ci gàttal yonent bi nañ ko yóbbu nañ ko rey beneen soxna it dafa ñëw alxamidiya ñëw mu ne yonent yàlla bi man it damaa njaaloo ëmb bii mu ëmb daal dëgg dëgg ci njaaloo la jóge yonent bi bëgg na koo dummooyu mais ala kulli xaal mu insisté ba mu amee doom la ko yonent bi alayhi salaam rey Omar ne kon yonent bi raji mun a rey na ñu nit rey nañu gàllawaay bu àdduna yàgg mukk ba ñu naan téere yàlla bi duma rek a ci nekk laa wallahi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax moom la borom bi di wax yajalullahu lahunna sabila bu dee musul sëy moom dañ koy door téeméer yar bàyyi ko mais avant loolu suñu borom mu ni nañu leen tey nuñ koy waxeeti ci ci kër yi bu ñu génn mu des ñaar ñi borom bi di wax wala zani yatiyaaniha minkum loolu yi am na ay borom xam-xam yu koy firee ni suñu borom dafa wax jigéen ña allaati ndax ñoom ñoo ëpp lu ñuy njaaloo bi mu ñëwee ci góor ñu mu wax rek ñaar ndax wane rek njaaloo mu gën a bëri ci jigéen waaye mooy ñaari góor ñu jàpp ñuy njaaloo mu ne ñooñu nañ leen nañ leen lool donte ne lu ëpp ci mufassiruun yi lañ koy firee mooy ay góor jigéen képp ku ñu jàpp ci góor jigéen ba attey lislaam ji doog a wàcc suñu borom dane azuhuma lañ leen lor ñu mel ne mentalité bi yàlla def ci africain noir yal na yàlla saxal ko te mooy tey suñu ndaw ñi dañoo bañ góor jigéen dañ ko bañ par nature góor jigéen bu ñu xam ne da ngaa génnoon fii léegi sol yëre jigéen boo rambee fii léegi xale yu yuuxoo la noonu nag ñu la yuuxoo di la saboté di la lor loolu moo amoon jël ba ñu lislaam kenn daawu leen rey waaye dañ leen daan xatal ci dëkk bi yuuxu leen borom bi nag subhanahu wa taala lii la wax gannaaw bala wàcce ay aaya ne déedéet aaya yoo xam ne nii ci làmmiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la waxee ne yonente bi alayhi salaam mu ne man wajatumuhu yaamulu amala qawmi lut faqtulu alfaila walmaftu walmaful fu ngeen fekk ñaar ñuy def ne waa lut doon def rey leen ka taxaw place su jëkkër rey leen ka taxaw place su jabar nañ leen rey loolee mbokk daanaka borom xam-xam yi dëppoo nañ ci nañ leen di reyee nag ñu wuute ca ñii ne dañ leen di yóbbu ca place bi gën a kawe ci dëkk ba ba max leen gannaaw ba dóor leen ay xeer am na ñu ne dañ leen di cor jaasi am na ñu ne noonu ñu reyee njaaloo ko di lañ leen di rey am na ñu ca yegg sax bañ ne dañ leen waa taal ndax yàlla daa taaloon xawmul xawmul wut mi ngi noonu xijaaratin min sijilin mandur ay xeer yu ñu lakk ci sawara moom lañ leen teg ala kulli xaal mooy dañ leen war a rey amma nag mbokk bi tubaab bi ñëwee seen doxalin boo xam ne biñ ñu colonisé bàyyi nañ ko fi ñoom lan la ñuy wax mooy ano jigéen ñi di njaaloo fexe leen recensé leen di leen faj jox leen ay carnet pour lan ngir ngeen toppatoo leen bañ mën a bañ bañ a wàll population bi ay feebar jox leen ay carte boo xisa ba yor sa carte policier baay ak frère ak kenn amul droit am nga droit di wëndeelu di jaay sa bopp musuba bokk loolu mooy xalaatu tubaab waaye bu doon te dañoo jël rek diine teg fee ñu indi xel mbokk njaalookat boobu ñu ne jigéen bi dañ koy suivre pour mu bañ a wàll ñeneen waaw góor ñoom doon njaalool nag loolu tax woowu ñu leen suivre leen ñoom tamit ak xalaatu góor ak jigéen ñoo koy séq ah waaw feebar boobee nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko wax les MST mooy feebar yi jóge ci sëy day jóge ci góor di jóge ci jigéen du ci bëri góor da ngay gis ne ñoo ci gën a transfert pourquoi loolu loolu defuñu ko su ko defee mbokk loolu ay nax la loolu ay nax la loolu saxal mbon la ñoom ñëpp d'accord nañ dugal tey yow xale bi dugal ci internet bi nga xool la nga xam ne mooy sida bu bon bi feebar yu bon yi nga xool les pays arabes yi nga xam ne ñoo gën a sàmm seen diine ay Arabie saoudite ak yu deme noonu nga xam ne kenn ñi mu fa gaddu sa carte na da ngay njaaloo taux yi gën a néew ci feebar yooyu ñoo ko am lu tax lu tax nag ngeen jàpp ne kon su ngeen dajalee xale yu jigéen jox leen ay carte na leen jaay seen bopp waaye nag weer wu dee wala trois mois yu ne nga ñooy fii kat ñu seet la mbokk loolu tasaare mbon la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ne ñooy liggéey ci santé dañ koy def da ngay gis ne góor jigéen yu bon yooyu dañ leen di topp di leen woo di leen fat ndax ñu ne lan buñ leen fajul dañuy wàllu population bi waaw ana duma leen ah ana lu teewoon tere leen ñu ñu def loolu lu ñuy def ah pourquoi da ngay gis ne tey jii yamba jaa ngi nii ak drogue baa ngi nii képp kuñ gis ñu nga def ko dañuy jalgee ci yow dal sa kaw jàpp la amande la tëj la bu doon loolu lañ koy def ci cagato gi kon cagato gi jóge jógate fi bu fi jógalu dana wàññeeku bu baax almuhim mbokk nañu xam ne loolu du lay doonte ne ñoom loolu la ñu lay waaye loolu du lay suñu borom nee na ku njaaloo mas musula sëy yóbbu leen ko ca penc ma nañ woo mbooloo ñu sayda ko ñoo boole ko métital ko ak toroxal ko métital ko ak toroxal ko dóoru ko téeméer yar ci kanamu mbooloo mi ndax xam ngeen as gor ñu dóor ko junni yar ci biir néeg ba moo gën ñu dóoral ko téeméer yar ci penc ma gannaaw ba bu dee ne am góor jigéen la moom suñu borom mën a rey leen leen lii mbokk nañu xam ne may atte sharia te atte sharia rek moo gën a jóg a antum aalamu amillah ndax yéen a xam wala yàlla moo xam mi ngi noonu allahuma mbokk nag suñu borom yàlla ci mbaaxam nee na képp koo xam ne luwaal islam jotugul tege sa kaw nga daal di tuub dellu ci yàlla yéwénal suñu borom mu ne kooku bàyyi leen ko te loolu mooy ku ne jàppagul ba yóbbu la ci attekatub lislaam ku mel noonu su tuubee borom bi mu ne bàyyi leen ko te it yonent bi alayhi salaam loolu la doon wax ku yàlla natt ba nga def bàkkaar yi suturaalal sa bopp tuub sa digganteeg sa boroom yàlla baal la képp ku ñu indil sa mbir nag dañuy teg ci yow la nga xam ne mooy téere bi yàlla bi boroom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy at tawwaab te mbokk def bàkkaar daa di koy tuub ëllëg nga defaat ko ëllëg nga defaat ko teewul fii ak yaa ngi tuub tuub bu sel yàlla di la baal ndax yàlla mooy at tawwaab allahuma lu dul lan mooy tuub lan mooy tuub mbokk ndax tuub mooy yaa ngi naan sàngara foo naane ba pare naa astaghfirullah waay yow caga bi yaa ngi dem di njaaloo foo njaaloo pare astaghfirullah waay la wallahi tuub mooy nga daal di sellal sa yéene gëm ni lii ma doon def day yàlla ko xaraamal yàlla baaxe ne ma deewuma ci bi ma koy def léegi man tuub naa dellu ci yàlla njëlbeen tuub mooy riccu la nga doon def lii bu doon démb doon na tey dara jarul ma def ko ñaareel bi nga bàyyi ci saasi ñetteel bi dogu na dootoo ci dootoo ko defeti mukk gannaaw ba nga jiggulu sa borom jalla wa ala lii bu dee na àq la sa digganteeg sa borom bu dee àq doomu aadama nga delloo ko àqam lii nag la borom bi subhanahu wa taala ne képp koo xam ne def na ko moo tax mu ne taaba wa aslaha tuub na ba pare yéwénal suñu borom mu ne bàyyi leen ko te itamit nañu bàyyi xel ci loolu doomu aadama ñett mën na koo nattoo ak ndawam ba quarante ans ba cinquante ans ba sax mu nekk ci ay caaxaan agresseur ne njaaloo ne def na lu nekk mais ngelawaay bis bu tuubee nañ fàtte démbam suñu borom mu ne fa aridu anhum na ngeen leen fàtte seen démb bu leen leen fàttali loolu ah kii day moo fi nekkoon diw kii day moo fi nekkoon diw kii moo fi nekkoon diw rawatina sax koo xam ne yoonam néew ci kii day baayam moo doon nangam yaayam moo doon nangam la wallahi képp koo xam ne tuub na suñu borom mu ne fa aarudu anhuma ndax yàlla mi ko moom nee na nangul na ko tuub te da ko yëram borom bi nag mu ne tuub ci yàlla mooy ñiy def njombee ci bi jahaala jahaala boobu nekkul ñàkk a xam waaye mooy ci ak doye di as-safaha da ngay gis yonent yàlla yusufa keroog ba nga ba ko soxna yi deewoo ci njaaloo def na yàlla wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al jahilin yàlla boo ma dimbiliwul soxna yi pexe yi ñuy pexeel danaa ma sa dal seen kaw bokk ci jaahili ndax yusufa xamul njaaloo dafa haram noo xam na ko kon jahala boobu mooy lan mooy nit ki nga xam ne dafay def bakkaar dañ naan kullu man asa allah fa huwa jaahil nit ki na nga nekk docteur bi jeexal téere yépp mais jamono bi ngay njaaloo jaahil nga bi ngay naan sàngara jaahil nga bi ngay rey nit jaahil nga mi ngi noonu moo tax xatta frèram ya mu ne hal alimtum ma faaltum bi yusufa wa axihi wa antum jahilun ndax ba ngeen di fàttaliku ngeen la ngeen defoon yusufa te jahil ngeen te ñoom xamoon nañ ne la ñuy def baaxul moo tax ñu ne def leen ko sànni leen ko ci teen bi gannaaw bi ngeen tuub kon jahaale bi firiwul ne ki yàllay baal mooy ki xamul woon jaaloo la ki xamul woon jaaloo aram na kooku amul bakkaar ki xamul woon sàngara aram na kooku amul woon bakkaar ndax kooku xamu ko amul xujja bu ñëw ci moom amma ki ka xam ba pare di ko def kooku la ñuy tudde jahil bi jahala suñu borom nag mu ne suma yatubuuna min qarib mbokk qarib boobu mooy lan ci mbaaxug yàlla jàll wa ala mooy bala muy dee bakkaar bi nga def tant que tuub nga ko tuub gu sell bala ngay dee yàlla subhanahu wa taala dana la ko baal léegi nag na ngay moytu seytaan ne la waa dégg nga li imam bi waxe nee na moom tànk deewoo rek boo boo tuba yàlla baal la waaye nag ndax doomu aadama xam ne kañ lay dee ndax doomu aadama xam ne kañ lay dee loolu mooy de un ndax yow xam nga tuub gi la yàlla may tey ndax ëllëg da nga ko am mbokk tuub yàlla koy jagleel ku ko neex looloo tax fu sa yàlla dugale fu yàlla dugale sa xol tuub rek gaawal tuub ndax loolee xamoo kañ la ko yàlla day jël gannaaw bi suñu borom nee na bala ngay dee ca xamoo dee fu mu lay jógee moo tax borom bi subhanahu yonente bi alayhi salaam ne inna allah la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir fii ak de moo jëm ci sukuraat ñu mel noonu yàlla mun a daleen di baal donte ne yàlla nag mooy al alim aliman xakima te mooy benn waaye ngi ni masalan daan agressé dem na ba yàgg màgget na mënatul agressé mu ne tuub naa ndax ñun daañ ko gëm dañ nana sa digganteeg sa borom la waa ji nekkoon ci jigéen ñi de njaaloo guddi njaaloo bëccëg ba yàlla natt ko mu tëli mu ne tuub naa ndax ñun dañ ko gëm laa kooku sa diggante ak sa borom la su ko defee kañu xaw a gëm kañuy gëm mooy ki nga xam ne lam manoon tey la ko gën a man waaye mu bàyyi ko ci yàlla tax looloo tax suñu borom nag mu ne mooy aji xam mooy aji xereñi ka nga xam ne la muy bàyyi bàyyi na ko ci yàlla tax ka nga xam ne lam mënatul bu ko mënoon teyit du ko def ngir yàlla yàlla gën a xam ñooñu yàlla na yàlla nangoo ñu suñu tuub
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا barakallahu fikum suñu borom mu ne walaysati tawba du nekk mukk ak tuub lillazina ya'maluna sayyi'at ak tuub du ñeel mukk yàlla di ko nangul ña nga xam ne dañuy jëf ñaaw téef ya hatta idza hadara ahaduhumul maut ba ba muy teewe kenn ci ñoom ak dee qaala inni tubtu al'an mu ne ah léegi day tub na wala allazina yamutuuna wa hum kuffar yàlla du nangu li tuub ña nga xam ne dañoo dee fekk ay yéeféer lañu ulaika a'tadna lahum azaban alima ñooñu day ñu ngi leen di waajal mbugal moo xam ni mu metti lay doon mu tar yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa yaxillu lakum an tarisu nisaa karha du dagan ci yéen ngeen di donn soxna yi ci loo xam ne nii da ngeen leen te forcé neexu leen wala taaduluhunna ngalawaay bu leen leen xatal mukk li tazhabu bi baadi ma aataytumuhunna ngiree ngeen deme yóbbu ci lenn la ngeen leen joxoon ca can ya illa an yaatiina bi fahishatin mubayina xanaa lu dul dañoo dikkee ay ñaawteef yu ñu leeral wa aachiruhunna bil maaruf e waaye dëkk leen ak ñoom nekkal soxna yooyee ci njëkk fa in karihtumuhunna su ngeen demee ba sip leen it bañ leen fa asa an takrahu shay'a aka bari loo mën na am day ngeen doon ñuy bañ dara wa yaj'al allahu fihi xayran kasira donte ne yàlla da cay def moom yiw woo xam ne yiw wu bari la mi ngi noonu mbokk kon suñu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem nee na jaam bi fi yéeg déewagul bu tuubee yàlla jalla wa ala baal ko ak bakkaar ba lum mën a doon ci bakkaar bokkaale na rey na nit njaaloo na lum mën a doon su tuub ga jiitoo sukuraat ga rek yàlla subhanahu wa taala da koy baal amma nag foofu sukuraate yàlla du ko baal moo tax suñu borom ni yàlla du nangul tuub ña nekkoon jëf ca ñaawteef ya sax ca sax ca ba dee teewe leen ay dee teewe leen muy sukuraat te mbokk dee benn mbir la boo xam ne nii jullit da ko war a gëm nan lay demee mooy yàlla subhanahu wa taala da lay yónnee ay malaaka da ngay toog gisi malaaka na doon accident nga da ngaa explosive da ngaa nangam loolee mbokk ngay gis ci xëy bu la bokk doomu aadama yi mënuñu ko seede mais yow mii dee yaa koy seede yàlla da lay yónnee ay malaaka ko baax nga woon ñu indi melokaan bu rafet melokaan bu tedd naxanteeg yow ba génne sag ruux amma say-say bi dañ indi melokaan bu ñàng ñëw mu xam ne dee des muy nekk di yuuxu naan tuub naag bal leen ma ba ci kanam ak nangam ak nangam ak malaaka yi duma ko yóbbu la nga xam ne mooy ak ruuxam kon képp koo xam ne dee tim na la na doon dem nga tey ak ñu ne kat avion ba day daanu ci suuf la jëm tuub naa du jëriñ dara kondam nañ la à mort tey lañ lay rey tuub naa du jëriñ dara mbokk fokk balaa tuub gi di jëriñ mooy day fekk ne yow wóor na la ne am nga espoir dundaat mais boo demee ba dégg tim la moom loolee moom la firaw na defoon ba nga xamee ne nii dem na kàccoor gu ne mu woon ko yonent yàlla Moussa ba yàlla subhanahu wa taala musal Moussa mu dem ca géej ga ba mu demee ba vague yi riir wursi ko ca la ne amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israil ah te wa ana minal muslimin man day gëm naa ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yàlla mi bani israil di jaamu bis ne que tey jébbalu naa suñu borom ne ko al an ndéej nga koy doog a wax bi nga gisee ne vague yaa ngi fëx jëm ci yow kon képp ku dee tiim suñu borom du la nangul la nga xam ne mooy ak tuub wala borom bi wax maalam yu xarxir looloo tax it bokk na ci yonent bi alayhi salaam ne doomu aadama yi bokk na ci fitna yi axiru zaman ca ashratu saa al kubra nit ñi dañuy xëy rek jant bi fenk sow adduna yépp jant penku la leen di jóge jëm sow boo adduna naree tukki nag yàlla day inversé mbir yi jant bi fenk nit ñi di ko gis mu jóge sow mu ne su booba yàlla subhanahu wa taala dootul nangul kenn la nga xam ne mooy ak tuub ña nga xam ne dañoo dee ak yéeféeri bokk yéeféer bu dee jàmbat gu ne dana ko jàmbat ci jamono bi nga xam ne malaaka yaa ngi jël ak ruuxam heure bu demee allaxira ay rab yàlla dellooñu na amal saalihan xayra lazi kunna na amal ay yàlla dellooñu dañoo nangul ay waaye suñu borom mu nekki dee yàlla kéeféer yàlla du nangu mukk ak tuubam jeex na c'est fini borom boobu nag mu ne ñooñu maa ngi leen di waajal mbugal mu tar te it mu bokk ci lu jullit war a gëm àjjana yàlla defar na ko ba pare waajal ko ña fay nar a dëkkee yal na yàlla boole ñu ca sawara it yàlla defal na ko ba pare waajal ña fay nar a dëkkee yal na yàlla musal ñu ci yonent bi alayhi salaam nee na amul kenn kuy dugg ba meel lu dul malaaka yi buñ la laajee laaj yu capital yooyu ñu lay laaj soo réussiré dañ la ubbil ay fenêtre nga jàkkaarloog sa kër ci aljanna soo échecgee dañ la ubbil fenêtre nga jàkkaarloog say kër ci sawara ay mi ngi noonu barab boobu nag subhanahu wa taala bi mu bàyyee lu jëm ci ak njaaloo mu indil ñu loo xam ne nii itamit dafay xaw a jege ak njaaloo te mooy sëy boo xam ne normalul ndax suñu borom daa bëgg sëy bi ñu jaare la ko ci yoon ñépp jëriñ ci kenn bañ cee loru danger bi nekk ci ay nit daje ci njaaloo presque danger bu xaw a toll noonu day nekk ci sëy yoo xam ne sëy yu baaxul la moo tax naam loolu dafa mën a jàng guñ ko di Cheikh Soumane am jàng na non jàng nañ ko naam waaw moo tax suñu borom yàlla mu ne ay yéen jullit ñi du dagan ci yéen ngeen di donn jigéen ñi te la nga xam ne bañuñu ko mbokk arab yi lu ñu daan def mooy tey bu dee ne sa papa dafa dee nga doon mag soxna yi mu bàyyi soo yow yaay xool ka la ci neex nga tànn def sa soxna ka la ci neexul it da nga yóbbu keneen may ko ko mu delloo la can nga def sa poos yaa ngi dégg bu dee ne nekk ko fi frère yi ñooy ñëw jël soxna yi par force islam ne déedéet daganul ci jigéen ñu koy dugal ci sëy ci neexu ko du ngeen donn jigéen ñi dugal leen ci ay sëy ci neexu leen allahuma forme bi ko arab yi doon defe moo gën a grave waaye ñun boo demee suñu àll bi ba tey lu mel noonu moo fay nekk mooy jigéen ñi bu ñuy tënji ba war a muri comme ñoom niñ koy waxee ku nekk utal nañ la ka nga war a sëyal ku ne utal nañ la ka nga war a sëyal yaakaar naa nettali naa leen fi benn histoire ay yoon dama mas a dem benn dëj boo xam ne nii xaw na sori Dakar bëgguma tooñ waa dëkk ba sori na Dakar lool ñu dem ci armeel ya ba ñu jógee ci armeel ya ñu ñëw fekk suur lañ góor gi ba pare am benn góor dog taxaw daal dina waaw yéen doomu bàyyi xam ngeen jigéen ñi yéen a ciy priorité waaw wax leen ci ci jigéen ñi ah bay caam ne ah waaw ñun daal suñuy soxna rek nañ leen toppatoo mu ne ko xeelul mun te nekk ku nekk dem koo féetewoo mu ne waaw xanaa ñu kii rek mu ne comme yéen doom bàyyi waxu leen ñun doomi ndey ñoo fi sës eh Mor Thiam Fat Ndiaye eh Samba Diop nangam eh du nangam séddale soxna yi lii maa ngi teew su ko defee tey léegi liñ sul góor gi de ki nga xam ne nii moom lañ moom la ñuy féetale benn soxna soxna yi ñoom ñu nga fële xamuñu sax lu xew ka ñu féetale benn soxna bis nekk tey nag avant quatre mois yi moo koy jëndal ay saaboom moo koy yónnee ay nangam moo koy ne ay nangam su tenji li jeexee automatiquement dañ ko koy may soxna si bu bañee coow topp ko loolu mbokk da ngay gis ne islam gisiwut noonu islam lan la ñuy wax koo xam ne borom këram dafa faatu nañ ko bàyyeeg liberté boppam ku ne am na droit ñëw gaaral ko su ma sàmba ñëwee wax ak moom ay wax ah yow day xam naa ni ku mel ne yow ku la moom soxna nangam nangam ma dem ba moom ñëw ak xaalisam di ko jox kee ñëw ak neneen ñoom ñépp ñu won ko ne bëgg naa la su dee tinjam jeex na mu seet ku ko neex mu ànd ak moom waaye du bàyyi du nijaay du kenn ku am droit ne jigéen tey ki ngay sëyal te loolu mbokk bari na lool niñ ci lore jigéen ñi lan lan lañ ci lore góor ñi netta dinaa leen benn waay boo xam ne mu ne maa ngi commencé tux cigarette keroog bi sama grand frère deeyee bàyyi soxna soo xam ne nii daanaka presque xaw na koo mën a jur ñu ñëw ñu ne ko diw yaa koy jël mu ne déet ñu ne ko yaa koy jël mu wax wax bàyyi na ko yaa koy jël nee na ca laa dem jënd sama paquet cigarette di tux rek ne ndax déglu tux di def kii ala kulli xaal mbokk nañu xam ne islam nangul loolu daganul ngeen leen di may kër hën borom boobu it subhanahu wa taala ne ngallawaayi soxna yi bu dee dañoo nekk ak yéen bu leen leen xatal ngiree bëgg soxna si xat ba delloo la sa can mu dem nga tekki keneen te loolu it am na góor ñu koy def bu leen leen xatal mukk di ngiree jël la ngeen leen joxoon te it li borom bi ndax maa aataytumuhunna nga la waay xam leen ne can bàyyi moomu ko nijaay moomu ko can soxna si moo ko moom comme cay may mu dog koo may borom bi nee na bu leen leen xatal ngiree ñu delloo leen seen can ba dem comme niñ ko jànge woon ci suratul baqara borom bi mu ne xanaa lu dul ñu indi ñaawteef boo xam ne dañ koo leeral ñaawteef bu ñu leeral loolu mooy njaaloo goo xam ne ñeenti goro seede nañ ko wala jëkkër ji ci boppam moo ko seede su dee yow yaa seede ne sa soxna sii kat yaa ngi gis ne mi ngi dox tànki caaxaan am nga droit xatal ko ba mu delloo la sa can ngir nga teqali ko ak moom donte ne it lu bari ci mufassiruna yi fahishatin mubayyina lañ ko firi mooy ñaaw làmmiñ gam nekke ñaaw làmmiñ ngay nekke mayu la jàmm guddi mayu la jàmm bëccëg rawatina boo dëkk ak say waajur mayu leen jàmm guddi ak bëccëg ñu ne soxna su mel noonu bu dee ne loolu muy jukkoom dara nekkul ñu xatal ko ngiree mu delloo la su can nga dem allahuma lu dul borom bi mu ne soxna yi waashiruhunna bil maaruf na ngeen nekke ak ñoom ci njëkk maaruf awalan xamal ne mooy aada ba nga xamee ne nii am na ca dëkk ba waa dëkk ba yëpp rafetlu ko loolu la ñuy wax maaruf lu dul nag ne mu bañ a safaanoo ak loo xam ne yàlla subhanahu wa taala da koo digle wala muy dëppoog lu yàlla xaraamal lépp lu safaanoog lu yàlla digle wala mu dëppoog lu yàlla xaraamal bu ci àdduna yëpp daje woon nekkatul maaruf loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag li borom bi ne bil maaruf moo di ne kon mbokk société bu nekk dafa am nu ñu fay yore la nga xamee naam kon société bu nekk dafay am nañuy gisee ak njëkk loolu moo tax ba waaw bet bul wa dem na loolu moo tax ba ngalawaay nañuy bàyyi xel ci loolu itamit képp koo xam ne yaa ngi ci ab dëkk nga xool aada yewaa dëkk ba yore jigéen nga yore noonu jigéen képp koo xam ne ni dañoo gis dafa juddoo ci benn milieu aada ba mu xam lii la ñu xam bu ko yóbbu ci milieu boo xam ne bu fa demee dafay tumuranke loolu moo tax ba maaruf ci Dakar bokkul ak maaruf ca Paris bokkul ak maaruf ca Fuuta wala Saalum wala feneen anchuruhunna bil maaruf borom bi subhanahu wa taala nag ne soxna yooyu su dee da ngeen leen a bañ am ci ñoom loo bañit rafetal leen jëm ci ñoom ndax man ngeen bañ dara yàlla def ci yiw woo xam ne yiw wu baree bari la te loolu la ëpp la ko borom xam-xam yi di firi mooy nga gis soxna soo xam ne boo sañoon tey teqalikoog moom ba faw ngiree bëggatoo koo gis waaye yàlla subhanahu wa taala génne ci moom doom joo xam ne wala ay sët yoo xam ne daan na jëriñ adduna daan na jëriñ alaxira loola ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareel bi it li suñu borom ni asa an takrahu shay'an suñu borom waxul mën na am ngeen bañ soxna yi waaye dana mën na am ngeen bañ dara looloo tax ba jullit lépp lu la mën a dal neexu la métti na la ñaanal yàlla def ko yiw ñeel la ak bari ay élèves yoo xam ne keroog bañ échecgee seen bac jàppoon nañu àdduna tukki na ndekete yàlla da leen a bëgg a génn ci étude jàng mi yóbbu leen ci commerce yàggul dara ñee demoon ba am maîtrise ñëw nekk seen employé am déet ak bari ay jeunes keroog bañ dajalee lañ am yépp ne dañuy dem Europe dem ñu takk leen delloo si leen ndekete xiiwale leen yàlla nar a indil foofee loolee nga bañ ndekete loolu moo gën ci yow ak bari koo xam ne nii am na soxna mu daal di am désespoir ci moom ba soxna sa trahir ko ndekete loolu mu def moo gën ci moom loolu li ñuy wax ci soxna si jëkkëram fase fase gu ñaaw ndekete loolu moo gën ci gën ci yow mi ngi lay waajal leneen looloo tax ba mbokk suñu boroom jullit lépp lu ko yàlla mën a teg ci mu naqari ko ci mu metti ko danaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla day lii nga xam ne yaa ma ko teg yàlla nag ma wuutalal lu ko gën def ko la nga xam ne muy yiw ndax suñu borom mu ne bari na loo xam ne day yéen a ngi koy bañ fekk ne loolee da ngay gis ne suñu borom yàlla su ko neexee def ci yiw woo xam ne yiw bu bari la mi ngi noonu Cheikh Ousmane ñu jël beneen rek
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا جزاكم الله خيرا سجبرم جل وعلا مني وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج سديب بجنجين ba soppee palaasu soxna beneen soxna wa aataytum ihdaahunna qintaara te jox ngeen kenn ci ñoom ab trésor qintaar am nañu koy firee junni dinaar loolu lu bari la fala taaxuzu minhu shay'a ngalawaay la ngeen leen joxoon bu leen ci jël dara a taaxuzunahu buhtaanan wa isman mubina ndax da ngeen koy jël muy nekk ak duural ak bakkaar boo xam ne bu leer la wa kayfa taaxuzunahu ma yéen naka ngeen koy jële wa qad afda baadukum ila baad ca nekk na di feeñu lenn ca yéen ca la ca des wa axasna minkum misaaqan galisa te jàpp nañ ci yéen la nga xam ne mooy kóllëre goo xam ne ni gu dëgër la wala tankihu ma nakaha abaukum min annisa ee waay bu leen takk mukk loo xam ne mas na koo takk seeni bàyyi ca soxna ya illa ma qad salaf xanaa lu dul loo xam ne dafa wéyoon ci lu jëkk innahu kaana fahisha loolu day nekk na aw ñawtiif wa maqtan nekk na luy jur am mer jóge ci yàlla ak borom xel ya wa saa sabila nekk na it loo xam ne dafa ñaaw ci aw yoon mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni ki nekk ak soxnaam ci kër gi dem ba mujj soxna si indil ko ay jafe-jafe ngalawaay na ko bàyyi mu dem lu dul xanaa loo xam ne fahisha mu bàyyi na la su dee daa nam mu jël ci moom dara amma bu dee ne yow soxna si loolu lépp amu ci yow daal yaa bëgg koo bàyyi mu dem ngiree nga mën a indi keneen te it loolu daf ñuy jàngal ni soxna en général ki am benn soxna su ko bàyyee fokk lu ci bëri ma ngay ut beneen soxna ki amoon bàyyi woon am ñaareelam ut ñaareel moo koy tee nelaw ki bàyyi ñetteel ñetteelu koy tee nelaw ila axiri borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax allahuma boo demoon ci sunu maam yi tey da ngay gis koo xam ne day am ñeenti soxna léegi nag pour ñoom dañoo jàpp ne heure boo demee bay war a teggi kenn yow doo tànn da nga leen di tegoo bant ñeenti soxna yépp ñuy ñëw ku ne di bant ñu woo benn xale ku bantam génn kooku la ñuy fase loolu moo ko aadala boo xam ne islam xamul loolu yow yaay xool ko nga xam ne da ngaa jàpp ne da nga ko war a bàyyi nga bàyyi ko su doon da ngaa bëgg a takk la nga xam ne nii moom mooy moom mooy beneen soxna allahuma lu dul bokk na it julit loo war a xam mooy islam di mooy diine la darara wala dirara bépp soxna boo xam ne wóor na la ne boo ko fasee lor da koy dal te yow ànd gi ngay ànd ak yow loru woo ci islam danaan la ko mel noonu bu ko fase bu ko fase suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ni soo demee ba décider fase ko même bu doon da nga koo joxoon la nga xam ne mooy xintoor mën nga ko firee bu doon da nga koo joxoon dix millions wala cent millions suñu borom mu ne bu leen cee jël dara ndax jël ba ngeen koy jël buxtaan la buxtaan mooy lan moo dina ne yaa ngi duural jigéen lenn dong mooy dagan góor jëlaat canam mooy moom ci boppam moo wone ak mbañeel jëm ci yow defoo ko dara aq yi mu war a am yépp yaa ngi koy jox moom moo ne bañeel jëm jëm ci yow ah su boobaa day moom mën na laa delloo sa can nga dem mu dem wala boog mooy mu feeñal ak njaaloo goo xam ne gu leer la wala niñ ko waxoon sànq ci làmmiñ bu bon bu mu dëkkal ci yow yaag sa njaboot mais bu dee lii amul ba pare nga jël alalam loolee suñu borom mu ne kon duural la bakkaar la borom bi dolli ci nag ne waaw yéen naka ngay tëkke soxna nga ñëw feeñu ko wàcc ci moom mu feeñu la wàcc ci yow ba pare nga wëlbati ko wat la nga ca ne woon nga koy nangu donte ne kay fa taaxuzunahu boobu ñaari mbir la mooy nga jox ko ko ba pare nangu ko wala nga waroon koo jox can gi lànk mañ ko koo jox te yow la nga bëggoon ci moom am nga ko ba pare loolee mbokk da ngay gis ne suñu borom mu ne naka ngeen koy defee te jàpp nañ ci yéen misaaqan xalisa muy kullëre goo xam ne gu dëgër la yonent bi alayhi salaam daana wax ne mboolem digg yi nekk ci kaw suuf bi gën a yey ñu matal ko mooy dig bi nga diggante ba ñu may los doomi jàmbur ñaareel bi tamit mbokk nañu xam ne suy ci lislaam mooy dama yéen a dugg ci ba dee teqalee ñu bépp sëy boo xam ne soxna si lal na ne dama ciy jaar jàll waa ji lal ne dama ciy jaar jàll loolu dañ koy méngaleeg moto a mooy sëy bu ñu wutal limite waaye jigéen boo demee bay dugg ci sëy da ngay yéene ne dama yéene dee ci man nam nagu suba mu tas ci loo xam ne sóoraale woo ko ku góor ki it ba muy takk soxna daa yéene ma suul ko wala mu suul ko man na bu subaa mu tas ci loo xam ne sóoraale woo ko waaye miisaaq ba ngeen di sos yéen ñaar ñëpp day nekk miisaaqan galiza bu dëgër borom bi subhanahu wa taala daa di bàyyi loolu ne nag ngalawaay aada bi nekkoon ci arab yi sa bàyyi dee bàyyi soxna nga wëlbati ko takk ko ngalawaay loolu bu leen ko defetu mukk mukk mukk ndax mbir la boo xam ne ñaaw téef la ñaaw na day jur lu kenn xamul wala soxna si sa bàyyi takk ko am ak moom doom yow it nga wëlbati ko takk ko am ak moom doom yaa ngi dégg loolu da ngay gis ne kenn xamul lu mën a nekk ci ay mbir allahuma lu dul loolee nga xam ne nii suñu borom yàlla wax na ko it abaakum yàllaa ngi ci jublu baay bi jur jubluwu ci magu baay jubluwu ci rakko baay waaye nag bokk na ci loo xam ne nii borom xam-xam yi dañu koy wax te bokk nañu ci jiitu muy imaamu Malik mi naan ci mazhabam lañ nekk bépp sëy boo xam ne day yàqu mbokk islam rafetluwul mu koy def te mooy tey jii sa magu baay wala sa rakku baay parce que soxnaam nga dem takku ko ndax loolu yàqu mbokk ga ah kay kon dañ naan asli bi day dagan na waaye nag li ëpp ci société yi day foo ko defee mbokk ga yàqu boo demoon nag ci société boo xam ne ñoom loolu defuñu ko problème kooku defuñu ko problème si amul problème waaye bépp sëy ca incha allah suñu darsi bi di ñëw yàlla ngi ñuy won liste boo xam ne quatorze jigéen yoo xam ne bu ñu leen takk lépp loo xam ne ni passé na loolu dañuy wax dagan na sauf bépp sëy boo xam ne yëg nañ ne boo ko defee mu yàqu mbokk kenn du ñod du njëriñ ji indi lor yal na yàlla sàmmal ñu suñuy sëy yal na yàlla barkeelul ñu njaboot gi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain feebar bu julli jotee da ngaa war a julli même ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu paralysé nga xam ne mënatuñoo yëngal loxo ak tànk waaye ñu ngeeg seen xel bu julli jotee dañ leen war a wax diw julli jot na ñu julli niñ ma ne amma ki nga xam ne dafa doon teqali ko ak xelam dans le comment loolee borom xam-xam yi dañ ciy wax naan bu dee bis yu néew la loo xam ne nii xëy na paasewul une semaine ku mel noonu la gën ci moom julli yooyu ma fay ko amma bu dee paase na loolu dañ koy considéré ci ñu teqali ko ak seen xel loolee jarul mu nekk di ko fay su ko defee ay julli moom su dee da nga koy fay mooy da ngay xam ne lii war na la masalan tey jii yor naa lu mat ñeenti tisbaar ñeenti tàkkusaan ñeenti nangam man nga bis ba nga xam ne ca nga am am tawfiq julli yooyu yëpp nga fay ko bu la ko yàlla mayee bu dee dafa diis ci yow it man nga koo tasaare masalan bis bu nekk nga fay ñetti fan bis bu nekk nga fay ñetti fan ba baa julli ga di jeex su dee loolu dafay diis ci yow wallahu subhanahu wa taala alam amma bu dee yére boo xam ne dafa am ay dessin yu feeñ mooy bokkul ak yiñ ko defaraale nga xam ne dafay ànd ci moom picc yu sew yàgg dama noonu waaye dessin jëmm yu feeñ loolu jullit da ko war a moytu di ko sol mi ngi noonu rawatina ne lu ëpp ci dessin yooyu ay artistes la ñuy doon wala ñoo xam ne nii seeni jukko baaxul loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah après waaw bismillah waaw waaw kii njaaloo ñu rajmu ko ku mel noonu bu dee jullita bala ñu ko rajmu dañ koy tuubloo mu tuub su dee tuubam sell na mu nangu ne moo njaaloo de un nangu ne loi bi ñu koy teg ci yàlla la jóge mu tuub ko tuub bu sell ku mel noonu àddina la jëm alxaam yi dee mooy soxna soo suma leen doon wax bam ñëwee ci histoire bu gudd ba yonent bi alayhi salaam ne nañ leen ko rey bokk nañu ko doon rey mooy Xaalid ibnu Walid bi mu ko dóoree xeer dara ji tis ko Xaalid wax wax ju ñaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ko loolu mi ngi noonu ba mu demee ba di ko julli lenn ci sahaaba yi ne ko ah yu mu yàlla yónni kii njaaloo bañ rey ko nañ la ko julli mu ne kii day tuubam buñ ko mënoon a séddalee mbooloo ci waa ay julit mën na leen yóbbu aljanna kon mi ngi dépendre ci loolu su ko defee li ñuy wax rey giñ ko rey du mooy dindi bàkkaar bi de ki sàcc dagg bi ñuy dagg loxoom du mooy dindi bàkkaar bi de waaye kay dagg loxoom wala mu koy rey da koy jëkk a waar delloo ko ci yàlla tuubloo ko waaye nag xam ngeen foofu tuub du tee ñu teg ci yow loi avant ngay ñëw ci attekat moom boo tuubee mi ngi noonu waaye boo xesee ba ñëw ci attekat bi fokk ñu teg ci yow loi attekat bi nag dana la waar tuub loola delloo la ci yàlla bu ko defee bu dee ku ñuy rey nga bu tuub googu sellee ci yow àjjana nga jëm insha allah naam naam alayhi salaam waaw ki nga xam ne dafay am feebar bu koy jaxasee léeg-léeg mu julli ba pare naan julli gi baax nag julli gi baaxul heure bu jógee jëm ci jaamu yàlla day musul ci seytaan su jullee ba pare daa di dogu ne baax na bancaa nekk di sikk sakkaati am na ñoo xam ne ni da leen di dal ci lu bari ci ak njàpp yi ndax raxas naa fieeg jàpp ba dem ba waa ji julli naan ndax man raxasoon naa sama loxo ndeyjoor ak sama loxo càmmooñ ak loolu bu dee la lay dikkal lu bari la da ngay bañ a wëlbati ko ci loolu loolu daal lay borom xam-xam yi wax ci wàllu was-was mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam koo xam ne ajjuma ba ajjuma lay dem jàkka këram lay jullee yi ci des waaw kooku de dañuy wax naan dafa ñàkk a xam dafa ñàkk a xam ndax su dee ne kër gëm dëkk noddkat ba nekk ca jàkka ja ndax ajjuma ba ajjuma lay nodd la wallahi noddkat bi kay day nodd cinq fois par jour kaka woo ca ajjuma ji moo koo tisbaar moo koo takkusaan looloo tax ba loolu njuumte la dëkk ak jàkka naan du ma fa dem lu dul ajjuma ba ajjuma mi ngi noonu jàkk dañ koo def pour waxtu julli juróom képp ko amul ngant da ngaa war a wuy ji abdullah ibnu masud ne na bi yonent bi day dund ñaar dong ñoo daawul ñëw jàkk ku feebar ñëpp xam ne diw ma nga tëdd feebar wala naafiq boo xam ne ñëpp xam nañu naafiq la te naafiq yi gée lañ daawul ñëw ak fajar ndax jàkk yonent bi amuloon courant ñoo làqatu ci lëndëm gi du ñu ñëw waaye dañ daan ñëw sax yeneen waxtu yi loolu daal moo tax ba jullit bu dee amoo ngant yaa ngi dégg nodd noddukat boobu xamale mi ngi lay woo ci turu yàlla mi ngi lay woo turu yàlla allahu akbar hayya ala sala mi ngi lay woo turu yàlla da ngaa war a wuy ji loolu mbokk mi ngi noonu yaakaar naa mënees naa doyloo loolu ba yàlla dajale waat ñu fi yàlla na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain